ba tey ci seen scandale du jour de ce 2 avril 2024 tax ñu dem seetaan na bu Dash moom nag xam ngeen ni ci wàllu ci campagne gi mu ngi doon gunge ki nga xamante ne mooy amalu Ba bu Benno Bokk Yaakaar tey nag gën na ko assumer waat ndax nag nee na bu muy am lu muy am boobu àndut ak benn politicien nañ dem seetaan na Nabou Dash ñëwaat. peu importe ku toog ci kaw Sénégal dama ni. je pèse mes mots peu importe le président du Sénégal peu importe comment on donne, que ce soit Bassirou Diomaye que ce soit Amadou Ba peu importe man Nabou Kébé li am am that's first one. écoutez-moi très bien ça fait 10 ans que je suis ci auto-entrepreneuriat bi samay kër le même que man au moins je suis dans une maison au moins j'ai un travail au moins je participe au développement au moins j'ai des salaires C'est dafa bëgg dama bëgg mu peu importe je m'en fous ku toog ku mën a man l'essentiel que le Sénégal am jam am salam moo gënal parce que je suis sénégalaise te jam ak salam lañ bëgg peu importe ku tok lek ngi nan mangi ngi bien honnêtement te le président Amadou Ba Moko ko publiquement nak ñëpp dégg ma politique boléwuma ak mom sama goro la na leer politique boléwuma ak mom Amadou Ba sama goro la na leer na leer politique boolewuma ko mom kenn musul gis Nabou ci politique jamais musul am musul am Macky Sall toog na ci ngouram bay waagi dem musoo len ma gis ci réseaux sociaux yi ma waxal ko lu baax tout le temps dama koy attaqué tout le temps tout le temps archive yaa fi vidéo yaa fi lepp mi ngi fi et tout est sur internet Macky Sall je suis j'étais je faisais partie des premières personnes yi ko di doon wax li yépp tout le temps dama ko doon attaqué tout le temps donc man c'est par principe parce que ku baax la ku jullite la te aussi dama gis ñëpp sot ko man dama xam lu bëri ne patt toog dama gis ñëpp sot ko man ma ñëw def def ko avec mon cœur avec avec mon âme avec tout Yalla nak mooy maye ndam honnêtement yalla mooy maye ndam nekk ci commentaire yak di xas di di di saaga amul ben sens jël ngeen mi problème faire nak nag ba liggéey réew mi fexe leen ñii di dee ci géej gi fexe leen ngeen résoudre ko fexe leen ngeen wàññi lekk gi fexe leen ngeen wàcc location yi fexe leen sénégalais yiy jël seen kat. man euh, il faut que ñu def la part des choses. àndoo ak nit rek parce que alal ñëpp mënuñoo ànd ak nit ndax alal ñëpp mënuñoo ànd ak nit ndax alal lu mu ndaw ndaw dina ci am kenn koo xamante ne au moins dina la bëgg te yàlla rek tax. donc bu leen jàpp ne képp ko ànd ak Amadou Ba ak Macky parce que dañ laa jox ay millions non non non mbëggeel dëgg kenn mënu ko jënd te am na ñoo xamante ne kenn mënu leen jënd Nabou Dash ku ko xam-xam ko ci liggéey ku ko xam-xam ko ci liggéey liggéey na ba amal boppam kër jigéen bu mën góor tukki ñëw jënd fi kër di fi nekk yor ay employé di leen fay donc kooku yaakaar naa. Macky faloog Amadou Ba faloog jomay falu mo yem ci mom ken jox ko ci 15 ci sama njort bu rafet ndax ñoko ko donc il faut ñuy arrêter ni que ku andak, ku andak, pouvoir rek yaa ngi yor ay millions wallahi yoro wallahi yoro ci karam tuuti ngeen di comprendre lepp deug la ci karam tuuti di ngeen comprendre ni and ak nguur taxu tak eh, taxu a falu and ak buur taxu a doon bur barki yonent bi hmm. yàlla baax na